bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki diine lislaam njabootu naa Ahmadul Xadim ñoo ngi amaan mbégte di toogaat ci jataay bii nga xam ne jataayub sant yàlla la di feddliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal kenn dolli ak wéram bokk yi xam ngeen ne Touba ca kanam laaj lu nu manta di ko def fu ñu xam woote woon nañ am ndaje le 8 août woote boobu nag mu ngi jëmoon ci léggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bii di Touba ci mbeddi Touba yi jële fi taataay yi ak defaraat yoon wi loolu moo tax nag tey jii Touba ca kanam ne dañu daan laaj lu nu man te di ko def fu ñu xam te di ko leeral bokki jullit yëpp ba mu leer leen nàññi ci juróom-ñetti fan ci weeru août 2020 bi ñu nekk ba tey jii di juróom-ñetti fan ci weeru septembre ñu bëggoon ñu indi leen li fi jot a jaar ci jaayante bi ñu gën a leeral tamit ni bokkut ak ñaar téeméeri ñu laaj ab jaayante rek bu dugg ci diggante boobu buñ ko tàmbalee kon ci biir réew mi muy biir Sénégal lu fi jógee dugg ci jaayante bi ci diggante juróom-ñetti fan ci weeru août ba tey ji ñu toog mu ngi toll ci 1 milliard 316 millions 66 mille 745 1 1 milliard cent millions 66 mille 745. bu dee ci continent Europe lu fa jógee mi ngi toll ci 113 millions 736 mille 160 bu dee ci continent Amérique. la fa jógee mi ngi toll ci 77 millions 726 mille 800 francs bu dee ci continent Afrique la fa jógee mi ngi toll ci vingt 29 millions 887 mille 565 bu dee ci continent Asie li fa jógee mi ngi toll ci 4 millions 147 mille 300 francs kon boo boolee li jóge ci diaspora bi ñëw ci jaayante bi ci diggante boobu ma mu ngi toll ci deux cent vingt cinq millions quatre cent quatre vingt dix mille huit cent cinq. kon boo dajalee li nga xam ne moo fi jaar ci jaayante bi ci diggante boobu muy le huit août mille vingt ba tey jii di septembre deux mille vingt mi ngi toll ci un milliard cinq cent quarante un millions cinq cent soixante quatre mille cinq cent soixante un milliard cinq cent quarante et un millions cinq cent mille cinq cent soixante dix muy tolloog benn milliard. juróomi téeméer ak ñeent fukk ak benn million yu teg téeméeri junni ak fukk ak ñaar ak juróom-ñeenti téeméer ak fukki dërëm ak ñeent. ñu fas yéene cee dolli ay kàddu yu jëm ci li nga xam ne mbokki taalibe yëpp jaayante nañ ko te nekkul xaalis espèce doon ay jumtuwaay yu ñuy liggéeyee doon matériel. Euh, ciment bi liñ ci jaayante jaayante yi ñu ci jot toll na ci trois cent vingt et un cinq tonnes trois cent vingt et un mu nekk six mille quatre cent vingt cinq sacs. jaayante nañ ci lu tolloog deux tonnes deux cent suuf si camion benn yi xëy mi ñu mayoon Touba kanam tolloon na ci six cent soixante seize camion Touba ca kanam soleel leen gasoil ñu dem tibb ko indi ko euh, xeer am na ci euh, ci jaayante lu tolloog cent quarante mètres cubes tuyau PVC diamètre quatre cent PN dix amoon nañ ci ñeenti tuyau euh, ci jaayante ba tey tuyau yi ñu wax anaconda mooy tuyau yu guddi yi ñu booleeg moto pompe yi amoon nañ ci lu tolloog mille deux cent ba tey ci wàllu jaayante am nañ benn pelle chargeur eh, ñu bari gën koo xam ci pelle yu mag yooyu ànd ak pën yi di tibb di chargeur kii jaayante woon nañ ci benn pick-up jaayante nañ ci benn benn oto particulier jaayante woon nañ ko ci moto pompe yi toll na ci lu toll fukk amoon nañ ci jaayante ñaari moto pompe yoo xam ne benn bu ci nekk 20 euh, mètres cube heure lay def ak yeneen ñaari yoo xam ne bu ci nekk 100 mètres cube heure lay def ñett yoo xam ne 200 mètres cube heure lay def loolu ay moto pompe diesel la am nañ électropompe mooy yi nga xam ne ci courant lay dox ñaar yoo xam ne bu ci nekk 100 mètres cube heure la ak benn boo xam ne 200 mètres cube heure la euh, bu dee euh, groupe électrogène amoon nañ ci ñaar gaz gasoil tamit li nga xam ne jaayeen na dajale nañ ko ci ay jaayante tolloon na ci 22 585 litres bu dee ci ay terrain am nañu jaayante woon luy tollook juróomi terrain Euh, liggéey yi nga xam ne moom la ñuy def bari na ci lool ci jumtuwaay yi moo xam camion la moo xam ay euh, machine la yi nga xam ne ñoo war a defar piste yoo xam ne mbokki taalibe yi ñoo ko jaayante. bu dee diwlin diw gi ñuy toggee amoon nañ ci ci jaayante luy tolloog 1200 litres masque 3950 masque ak 18 thermoflash euh, bidon ndox yu 10 litres amoon nañ ci 50 ci jaayante cope à en papier 1000 saabu 103 cartons alcogel 34 flacons. eau de javel 10 cartons ceeb 2 tonnes euh, ndox mi nga xam ne ay paquets yu ndaw lay doon cent jus 117 pack ak de 2 cartons loolu mooy li nga xam ne euh, dugg na ci ay jaayante ci Touba ca kanam nekk ay jumtuwaay yu ñu mën a jëfandikoo bu ko defee nag kon dañuy daal di ñëw ak yéen directement ci li nga xam ne moo génne ci somme boobu ñu waxoon léegi te sëñ Abdoulaye moom sëñ Jili doon ko wax. li ci génne toll ci cinq cent soixante et un millions euh, vingt six mille deux cent quatre vingt douze loolu mooy li nga xam ne génne nañ ko ci. li ci njëkk mi ngi jëm ci latérite mooy xeer bu xonq bi nga xam ne moom la ñuy defee liggéey bi ndax xam ngeen ne bi ñu doog a commencé bi ñuy woote jaayante bi le huit waxoon nañ ñaata lañ soxla woon ci latérite waaye booba ñu ngi ko xayma woon ci tolluwaayu poste Touba ca kanam. ginnaaw bi yàlla dogalee nag ñu woote jaayante bi murid yëpp wuy si ko dara di soppiku ñu yokk li nga xam ne moom la ñu naaloon ba tax na euh, dinañ dinañ ci dikkaat ci anam gu gën a yaatu sax wax liggéey yi fu mu toll ak bu ci nekk distance bu ci nekk lañ fa war a def ak nañ ko fa war a defee waaye li nga xam ne jot nañ ko dajale ci latrit te li ci ëpp jóge Ngunjaan ndax temps yi lañ doog a tàmbalee fan yi lañ doog a tàmbalee am yuy jógee Xelkom euh, liñ ci jot a dajale toll na ci 18240 mètres cubes liñ ci def ci xaalis mi ngi tolloog 68 millions 282 mille 500 francs bu dee lu mel ne suuf si nga xam ne moo doon jógee Njaareem wala Kër Kàbb ndax dañoo am suuf soo xam ne foofu lañ koy soxlaa tolloon na ci 142 charges nekk 7 millions 238 mille euh, xeer bi ñuy wax 031 xeer bu ñuul bi jënd nañ ci li tolloog 1980 mètres cubes nekk 25 millions 605 mille machines yi nga xam ne ñooy liggéey ci piste yi moom ngeen gis ci kaw yoon yi ñuy liggéey euh, yi nekk ay gradeur yi nekk ay compacteur euh, xeeti machine yu mel noonu ak yi pelchargeur nga xam ne yi ci ëpp dañ ko luyee ndax Touba kanam ñaar rek la ci am benn bu ñu jaayante ak beneen boo xam ne jëndoon na ko loolu li ñu ci fay ci location ci weer wi toll na ci vingt six millions cent cinq mille six cent dix bu ñëwee ci matériel bureautique lu mel ne imprimante A0 mooy imprimante grand format yi ñu tiré plan yi ak ay ordinateur jënd nañ ci lu toll ak euh, quatre millions sept cent quatre vingt dix mille ba tey lu jëm ci matériel topographique mooy matériel yi nga xam ne moom la topographie utiliser ñu ngeen di gis ci piste yi ñuy xool ba xam. Euh, gudd na gàtt naag suuf si mel na nii ak mel na na loolu li ñu ci jënd toll na ci un million huit cent soixante dix mille. am na benn citerne pour gasoil bi nga xam ne moom la Touba Ca Kanam di jëfandikoo di dem ci terrain bi di ko jox machine yi nga xam ne ñoo ne ci liggéey bi dañ cee jënd benn citerne boo xam ne day ànd ak pompe ànd ak yeneen jumtuwaay yam war a àndal yëpp nga xam ne ku ci nekk bu ñu koy solal danañ ko mën a natt ñoo ko jëndee un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq euh, jëm ci wàllu communication communication télé rajo ba ci. panneau yi nga xam ne moom la ñu war a samp ci bërëb yi ñuy liggéeyee def nañ ci lu tolloog 8 millions 852 mille 400 jumtuwaay yi nga xam ne tamit moom la ñu war a defaree muul yi muul yi mooy euh, li ñuy wax ay dalo lu mel ne ay ay ay ay caniveau wala ay canal yooyu nga xam ne cinq béton lañ koy liggéeyee wala ay regard muul yooyu euh, jënd nañ ci luy tolloog 5 millions 672 mille ci matériel boo xam ne moom la ñu war a defaree nga xam ne moom la ñuy defaree jumtuwaay yooyu ñu wax léegi. lu jëm ci carburant carburant xam ngeen ne lu ñuy jëfandikoo la ci liggéey yu mel nii moo tax li ci Touba ca kanam jot a jënd ci ay litres toll na ci 68 mille 86 litres nekk 44 millions 596 mille 724. lu jëm ci wàllu restauration te mooy euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi nga xam ne liggéey bi li ci ëpp ay jaayante lañ xam ngeen ne bi bi ñu wootee rawatina lu jëm ci ngas mi pour tëral ci way Baye Fall wuy si woon nañ ci. ak bis bi nga xam ne camion benn yi ñëwoon nañ ci ak ñi nga xam ne jamono bu nekk ñu ci liggéey bi ingénieurs yi nga xam ne bàyyikoo nañ fu nekk ñu indi seen jëmm ngir jàpp ci liggéey bi ñooñu ñëpp dañ leen di waajalal ay xéewal liñ ci jot a def ci weer wi euh, toll na ci 4 euh, millions 914 mille 600. ba tey lu jëm ci tiwa yi nga xam ne moom ngeen gis muy tiwa yu mag yooyu ñuy tëral ci yoon yi doon ay tiwa yu mag a mag a mag Touba ca kanam jënd na ci valeur bu 143 millions 627 mille 350. machine yi nga xam ne moom lañu war a utiliser ci tali yi ndax liggéey bi liggéey buy tàmbali la waaye yéene ji mooy muy wéy même bu ñu demee ba màggal gi jàll tamit ñuy wéyal ci mbedd dëkk bi mbedd yi nga xam ne jàpp nañ ne yi warees na koo defar jubbanti ko sax ñu def ko tali moo tax ñu ne nañ tàmbalee fàggu jumtuwaay yu man loolu jënd nañ ñetti xeeti machine jënd nañ machine bi ñuy wax niveleuse ñu koy wax gradeur jënd nañ compacteur jënd nañ tractopelle ñetti machines yooyu yëpp ñu ngi ko jëndee 201 millions 94 mille 420 lu jëm ci jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñi nekk ci liggéey bi di jëfandikoo moo xam ay dàll la moo xam ay casque la moo xam ay gilet yi ñuy sol jënd nañ ci lu toll ak un million trente mille cent franc bis bi nga xam ne ci la tàmbali liggéey bi euh, organisation bu bis ba def nañ ci lu toll ak cent quinze mille yeneen tiwo yu ndaw ndawaan yi ñu doon jëndaat ak transport tiwo yi ma wax léegi itam jóge woon Dakar ak euh, bu ñuy gas léeg-léeg tiwo ndox yi ñuy taseel mu dagg ñu koy defaraat loolu liñ ci def toll nag deux millions trois cent soixante quinze mille ci réparé waat ak transport ak yeneen yu seesaan yi ci des ay matelas ak yeneen jumtuwaay yi nit ñi am pour mën a am seen dëkkuwaay ñi nga xam ne ñoo ñëw jaay ci li jaayante ci liggéey bi jël nañ ci li toll ak deux cent quarante six cent ay pelle ak i pic ak yu sew sewaan yi ñuy jëfandikoo jën nañ ci trois cent quatre vingt cinq mille li ñuy wax grille avertisseur te mooy pax mi boo ko gasee ba noppi ba tëral tiwo bi ba koy suul nga def fi màndarga mu muy tax bu ëllëgee ku koy sulliwaat mën a xam ne fii dara ngi fi bala ngaa àgg ci jëmi tiwo ba loolu li ñu ci jënd toll nag 537 500 euh, liggéey nga xam ne ñoo ngi koy def fi mu ne nii yenn bërëb yi nga xam ne am na ay liggéey yu ñu fay def defal lu mel ne ab foos boo xam ne ndox ma dafay dajee war faa jógewaat jàll feneen am na ay entreprise yu ñu ko jox benn ci entreprise yooyu jox nañ ko avance 792 880 Euh, liquide yi nga xam ne danañ ko booleeg ciment bi ngir boo koy liggéey ci bërëb buy am ndox day tax mu gaaw a wow jënd nañ ci lu toll ak 737 603 na tey ci wàllu topographe waxoon naa ko léegi lii da cee dollikuwaat toll na ci 487 500. am nañ ay euh, yeneen frais supplémentaires yu sew sewan yoo xam ne dafay jëm ci ay frais de voyage ay frais de voyage réparation jëndum batterie wala fexe ba moto pompe yi ñuy doxal man di dox ak lu jëm ci ay ruban ak manutention mooy fay ay manœuvres yu wàccee ciment ak yooyu. li ñu ci jot a def toll na ci cinq millions six cent cinquante sept mille quatre cent trente neuf loolu yëpp boo ko boolee moo lay jox cinq cent soixante et un millions zéro vingt six mille deux cent quatre vingt douze loolu mooy li nga xam ne moom la génnee gun ci jaayante bi boo ko génnee nag ci li nga xam ne moom la ñu encaissé li nga xam ne moo des ci jaayante bi mooy neuf cent quatre vingt millions cinq cent trente huit mille ci tolluwaay bi nga xam ne mooy bisub le septembre ndax jaayante bi ba léegi mi ngi wéy mbokki taalibe yaa ngi wéy di. joxe seen i jaayante. di leeral bu baax ne 561 millions 26 mille 292 yi ñu wax ne moom la ñu génnee gun ci xaalisu jaayante bi li nga xam ne moo ci jëm ci liggéey bi ñu toll nii nga xam ne moo ci jëm directement loolu mooy tolloog 353 millions 366 mille 292 207 millions yi ci des ay jumtuwaale yu ci ca kanam jënd fas yéene di wéy di ko liggéeyee ci dëkk bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki taalibe yi mbokki jullit jàkkaarlu ñun. ñu ngi yëkkati suñu kàddu di leen nuyu nuyu ba gën a jóg ci nuyoo yi bu ci nuyoo yi ci turu sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Mountakha ak ci ñëw ñu la war Cheikh Khadim gépp yëpp di nuyu julli nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen jëkkati kàddu cant ak ak ndokkeel leen ci xew bi nga xam ne ci lañ nekk woo nañ turu sëñ bi ak turu yoon yëpp nag kon may sant góor di jigéen di sant mag di sant ndaw di sant ñëpp ndax lii kat wax yàlla jàppoon nañu déwén ni mu waaye sëriñ bi boo koy wooteel hmm, xamal fa nga tàmbalee rek waaye boo xam yem ndax moom mooy yëkkati woote bi fu mu xol boo dugg ma ko war yoon wi kenn disut ñëpp ñëw nañ waaye ñu sanaat Baye Fall yi tim ci boppam ndax ñoom dañoo ñëw ñëwaat loolu nag boo nga xee rek ñëpp xam ne Baye Fall yi ñoom ñooy ñooy yoon wi euh, da joxale seen àll waaye joxale seen doole tim nañ

dinañ waxal nañ mel ni ñuy doo tàmbali dañoo mel ñu ñu ruuj bëgg am cere ku ku ruuj nag bëgg am cere diggante simi ak suuf ak sim daa sore nañu xam ne dañuy dañuy dañuy ruuj te mooy li ñu tàmbali nañ fexe ba am cere nag ndax ndax ndax ruujam fi eh, faration fi eh, mu taw mu taw nga nga nga nga nga nga nga bay ak ak ak wallet ak yëpp ci biir ba ba ngay ba ngay bojj bay bay bay def ngar eh, bay soq bay wal bay foofu bay def yëpp ba toog cere ba teg ko siim kon fa lañ jëm sim gi nag mooy na Tuubaa na Tuubaa mel ni turandoo rek lañ bëgg kon ñu woo ñëpp rek ñu nag nekkuñu kuréel boo xam ne ñu jóg di parparloo wala ñu féete ci bàyyi kii déedéet dañoo fal suñu nopp yi fal suñu bët yi fal suñu yéene def lenn loo xam ne dana ëmb déef yi woote wuñu ngir wane di doole ji Tuubaa Tuubaa ci kanam am amul déet Tuubaa ci moom mooy murid yi rek dañoo woote rek ngir wane ne murid yi indi seen alal jox nañ ko Tuubaa ci kanam jaarale ko loxo loxo yooyu yu mu ñun nañ fexe fa fa mu dugg ñu leer na fii dugg lii ngeen jox lii lañ ci def lii ma fi des te xam ne dëkk bu sëñ Tuubaa nekk wërti moom yooyuwul nii fekk li ñuy wax ci ay mur lañ doonte ay mur gannaaw ay mur lañ te sëñ Tuubaa ci dëkk bii nga gis salte yi fii nga gis euh, pax fii nga gis ndox mi taay yi fii nga gis loolu na loolu yëlluwu ci dëkk bi mu ñëw ñëw dëkk bi li yàlla ay marbre la war a dëkk bi lépp dañ ko war a marbre man li ma waxoon ci tàmbali ba rek te bis boo xam ne bu fekkoon ne yor naa li képp àll ci àdduna yor kon dëkk yëpp mbedd di or lañ ko waraba yi sax xeeb naa ci loolu waaw hmm? kon li ñaan rek euh, na yàlla def dëkk bi mel ne turndóomar ci àjjana euh, te àjjana wax nañu moom amul lu tàng amul lu sedd lépp daa neex rek noo ko bëggee noonu la ko bëggee noo ko yàlla defee kon yàlla ko yàlla suñu tuwaa gi te ñu muurloo ko ñii dëkk bi borom ñaan mu mel ni yàlla na ci lu baree baree sotti suñu loxo ba bu ëllëgee si biir euh, jil bi ñëw ñoom ñu def lu kaw suñu njort waaye yàlla ñu yàlla bàyyi gunge ñu ñu ànd sëñ bii di ko liggéey sëñ ba def lu lu lu lu kawe jot nit ñi ba ñaan lii mën fi woon mosu ñàkk mosu ñaan am borom àll yi ñëw nañ borom xam-xam yi ñëw nañ borom doole yi am nañ ñëpp ngi ñëw waaye yokkaat leen rek waaw kenn ko jàpp ne yow Sëñ Tuubaa defal la waaw lu waay defal na ko xeeb ndax nañ xam ne kat fa ñu jëm dara du fa dey te Sëñ Tuubaa lu waay def mu fay la ko waaw kon nag liggéey fii ndax mag ñi fi seen Sëñ Tuubaa ba seen jabar yi tedd ci seen teraanga joojee ñoo defoon Sëñ Tuubaa da waaye suñ nit ñi defuñu suñ bi dara kon nag ñoo liggéey ba liggéey Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa moo leen fay mu ragalaat ba lu bokk ñoom Sëñ Tuubaa fayee loolee kon nañ xam ne nañ profité ñu fekk doon gas bu raay ba nii nii ñëw leen ñu fekk taxu jumaa ji ñëw leen lu waaye def ñu mel da nga defoo na ko saabixoon saabixoon boo ko waxee ti bonopi waaye yàlla mën naa yëkkati loolu ndax aussi jant mu jëm si ñun ñu jàkkaarlu moom di see jariñu kon maa ngi yem yem soo kàddu yàlla euh, mu fekk bu ko fi màggal fekk na dem dem ñu dem mu dem te yàlla dafa jàmm waa bitim réew donc yi fa nekk yëpp su boobu musal leen dafa waa yi mu jàmm ñooy itam waaw ñi xam ne ñi ci ndox yi métti mooy dëkk bi rek dama ko waxee Tuubaa ci boobu rek sax lay wax foo dem rek fay bi am na fi euh, yàq na adduna sépp daanaka waaye nag nañ ko sant yàlla caaw yàlla rek la ndax moo gën mu def ko ay sàccat wala yàlla def ko ay melentaan wala ay sa ay sax wala ay wala ay teeñ ndax amoon na fi hmm? wala xuma la wa dafa di aw dama ayatu musta loolu amoon na wa dara ji yoon kon nañ sant yàlla yàlla da mu teg dafa dafa gën bu leen yem ci ndox mi rek baax na xëy ndox mi daa naan raxas choléra bi mu jógee ci réew kon yàlla na ko rasaale bakk Seexna Ahmadu Xadim kon mbir maa ngi noonu ñëw leen dem ci kanam ci kanam